Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Now you can listen to our Fakir Muhammad Saha Tijani along with the greatest scholars of our time on Tijani International Radio every day at www.icfaonline.com, at www.muhammadsaha.com, by dialing your phone at 616 five nine seven Your questions about Islam, you may call 347 596 2036 or email us at icfaonline at gmail.com. Spread the word by sharing this message with your friends. Wassalam. Wassalam. Wassalam. وهو رقي النفس حق حقا والدعاء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 wa radiya allahu tabaraka wa taala an saxaabati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala xawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim mbokk yu tedd yi ñuy seetaan ci barab yu faccantikoo ñu ngi continuer ak yéen di bégee yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di continuer ak yéen di jàng mbiru yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam di continuer ak yéen di settantal eh, tagg rafet wii sayyiduna al busiri rahmatullahi alayhi eh, tagg yonent bi alayhi salaatu wassalaam gannaaw bu ñu dajee ci tant yu wuute ci àdduna eh, di ko màggal amul benn bés ci bésu rabiul awwali lu dul rekk am na ay junney tant yu ñu ko tàntal ci barab yu bokkut xam ngeen ne alxamis gi àdduna yëpp a ko tàntal ajjuma noonu fii ci Coney Island macha allahu Euh, gàmm gu mag a mag a mag am fa démbit suñu mbokk yee ca ab ab state New York ñu ànd kook ñoom ak yeneeni barab ba ci tey ci New Jersey euh, loolu nag su amee maanaa mooy ne alhamdulillah bëgg yonantu sallallahu alayhi wa mi ngi ci xol yi yal na yàlla saxal bëgg yonent bi ci xol yi te yonent nee na kenn ci yéen du mos xalaawatul imaan lu dul yàllaa ko yonentam gënal ko lu dul ak kudul yàllaa ko yonentam ñu ngi ñaan suñu borom fuñ tolloo mu saxal gënal gi ñu yàllaa ko yonentam gënal lu dul ñoom ñaar ak kudul ñoom ñaar wallahu wa rasuluhu xaqu an yurduhu ñu ngi koy ñaanit suñuy ajo yu biir ak yu biti yi ñu mën a wax ak yi ñu mënta wax mu boole ñu ko fajal tey nag imaam Busiri mi ngi ñuy nettali xew-xew bu nga xam ne xew-xew bu yéemee ni moom mosula xew ci àdduna te dootul xew ñeel kumu kumu wala lumu lumu ci mbindeefu yàlla yi te mooy xew-xewu lisra wal miraaj mu ubbee ko nag ne yaa xayra man yemmama alcaafuuna saaxatahu sacyan wa fawqa mutuunil aynuqi rusumi wa man huwa al ayatul kubra li muctabirin wa man huwa nicmatu lcudma li mughtanimi sarayta min xaramin sarayta min xaramin leylan ila xarami kama sara albadru fi daajin min azulami yaa xayra man yammama alcaafuuna saacatahu yow yonentu yàlla muhammad mi nga xam ne képp ku ñu ñàkk mosa jublu këram yaa ko gën gën koo tabe moo xam ña fa jëm dañoo fàndañ lu di dox ak tànk ngir ñàkk nañ ba amuñu waruwaay walla fañ jëm sori na bañ wut waruwaay ya gën a mën a dagg diggante yu sori ni ki géléem yow mi nga xam ne yaay kéemtaan gi gëna a màgg ci kéemtaanu yàlla yi ñeel képp koo xam ne xelam a ngi xalaat yaay xéewal gi gën a màgg ci xéewalu yàlla yi ñeel képp koo xam ne dana am xéewal yow de rañaan nga jóge ci xaramu makkata jëm ci xaramu baytul maqdis yi ni weer di rañaane jóge ci barab jëm ci yeneeni horizon waaye ñaar rekk nga ko niru mooy turu rañaan gi ak def gi ngeen ko bokk di def guddi waaye ni nga rañaane weer mënu ko diir durée bi nga ko defit ndégam sax durée am na fa weer bu doon rañaan bañ ko bindagut ba ba àddunay tukki du ko mën yonent bi sallallahu alayhi wa sama borom ko ràññaanee bésu altine ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab ci wax ji gën a siiw mu jógee makka dem baytul maqdis jóge baytul maqdis jëm ci rañaanuwaay yu bokkut yi wax nañ ne guddi googu rañaan na jëm ci fukki yéeguwaay dinañ leen tuddal yépp bi idnillahi tabaraka wa taala bésu altine waaw ci la juddu sallallahu alayhi wa ci la génn màkka rañaan ci la génn màkka it gàddaay ci la yegg madina it ci la faatu moo ne sax ci lañ ko yónnee sallallahu alayhi wa lis nañ ni mooy firi ñaar te yonent bi xam ngeen ne mooy ñaareelu xadara yi gannaaw yàlla mi nga xam ne naka jekk mi ngi fi yenentu la njëkk a amal mu ñaareel ko ci am looloo tax mbiram yépp di wëndeelu boog ci altine sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ko fekk mu ngi ci kër sayidatuna ummu haani cousinam la ñoo bokk benn eh, dingare buñ dëkk doomi abu taalib di sëru ali jibril fekk ko mu tëdd di nelaw ñaari waayam ko seq ci néeg bi mu tëdd mook ñaari nit a fa tëdd ay góor lañu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama jibril ko yee ñu ne dem ak moom ci xaram ba walla yóbboo ko noonu bi nga xamee ne fas na ko yéene yóbbu gannaaw bum ko xamalee li ko tax a jóg mooy sama boroom xam na li nga daj yépp ci màkk fukki at a nga nii nga leen di woo xam na lor gi ci màkk fukki at a nga nii nga leen di woo xam na weddi gi ñu la weddi yépp ci màkk fukki at a ngi nii nga leen di woo xam na it mettit wi nga jànq wanteeg ci ñàkk gi nga ñàkk sa soxna su baax si di xadijatu ak sa baay bu baax bii di abu taalib gis na it souffrance bi nga jànku wanteel ca taif moo xam doj yañ la sànni la walla baat yu naqar yi yi nga miin makka ñu sànni la ko walla lor guñ la lor ba nga ñàkk say sens ba xiqee ji ca biti taif yàlla wan la fa ne la waxuma la waa màkka waaye àdduna yëpp dañu la gëm te ka ko wane mooy àddaas ma la fa fekk jóge Niniwaa Niniwaa ca Iraq yàlla wan la ne it malaul aala ñoom xam nañu yaay kan tax mu wàccee malaka mi nga xam ne moo yore mbiru doj yi ngir boo joxee ndigal mu alak leen mu boole laak jinne yi ñu gëm la wa id sarafna ilayka nafaram min al jinni yooyu nag dafa bëgg nga teg ci sa bët kaay nga dem malawul alaa tey mi ngi la bëgg a invité invitation bu nga xam ne mosu koo defal kum bind te du ko ko mos a defalati waxuma la malawul alaa fa yonent yi nekk waxuma la fa malaayika yi nekk waxuma la arasha kursi waaye da romb yooyu ba doo gisati barab doo dundati ci jamono nga dem ca xadara yàlla ba subhaanahu wa taala ah yonentu jokk jibril xotti xol ba ni nga xamee ni xotti na ko ca ba muy nekk ca xalimatu ca ndawam xotti ko ba mu amee fukki at ngir mu ngi jege si di dugg si ci waxambaane xotti ko it ba mu matee waxambaane xotti ko bañ ko yónnee ñu ne it ñu ngi koy xotti tey bi nga xamee ne ñu ngi koy rañaanee ngir yamu war a xenu ji mu xam ko mu àttan ko bu dee sax xam na ko ci biiram ñu indil ko daaba joo xam ne euh, mi ngi tudd buraax wax nañ ni li ñu def ci xol bi biñ ko xottee mooy dañ ko raxasee ndoxu zamzam xam nga sëm sëm dëkku fi ah zamzam saa ko indi ah. daaba ji ñuy wax buraq nag moo gën a njool mbaam waaye tolluwul ni fas diggante fas ak mbaam la maanaam bu doon tey ñu ne barkeel la waaye kenn mësul gis daaba ju tëddee noonu bi mu indee daaba ji ne ko gis nga daaba ji sooy war rekk fu bët ba xagg rekk tànk ba xàgg na fa moo tax ñu koy woowee buraq yonentu sallallahu alayhi wa sallam na ma war garaaba gi daaba gi mel ni dafa xaw a euh, dafa xaw a bañ nee ñu jibril jàjj ko nag ne ko abu abi muhammadin tafaalu hada sañ nga def nii muhammad xamuloo ne yàlla bindul ku teddee ni moom ku teddee ni moom mosulaa war du la mos a war ndeysaan nee ñu daaba ji ruus ba ñaq waaw suñu borom waral ko daaba ji mu xool fekk ma nga baytul maqdis jibril ne ko gis nga daaj bële eh, fa la yi daa yeew seen daaba yi yeew fi sa bos naka la duggee fekk na ñoom ñëpp ñu ngi teew ci ko xaar def seen sàppe mu jiite leen taxaw ca doj wa doj wa yëg ne am na ko taxaw ci moom mu am jeexital nee ñu jeexital baa nga fa ba léegi yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi wa sallam nee na bi ma toogee nag ma mar-mar moo xam ne musuma mar-mar mu mel noonu nee na ñu indil ma ñaari ndab ndabi soow ak ndabi lem ñii ne ndabi soow ak ndabi sàngara ne mu naan soow ma soow la walla meew la arab ñaar yëpp dana ko tuddee leben te benn la léeg-léeg mu différencier lëban ak xalib nee na bi ma naanee sow mi ba mu des tuuti jibril ne ma alhamdulillah daan nga fitra boo naanoon sàngara si rek sa xeet yépp murtat boo naanoon sow mi it ba mu jeex sa xeet wi yépp ay gëm mu ne ko jox ma li ci des mu ne ko jëfal xalamu nii la ko yàlla dogale nee foofu nag lañ ko indi laayaatee buraax ñii ne miraaj ñu jéggi jëm ci asamaan yi yonent bi sallallahu alayhi wa wax nañ ne rañaan na fanweeri rañaan ak ñett ñii ne fanweeri rañaan ak juróom yenn yi ci nelaw yenn yi ci ruux ni ko aarif yi ni di defee donn ko ca waaye rañaan nag yaram la ak ruux kenn sañul wax ne ruux la donte boroom xam-xam yi danañ ci indi ay yëf waaye ku mel ni tabari nee na wax ne ci ruux rek la ko yàlla rañaane du wax joo xam ne eh, jëm na kër ndax bu fekkoon ne ci ruux rek la ko ràññaane jarul mu naan subhaana te tamit yàlla bi abdihi la wax waxut bi ruuxi abdihi ñu xam ne kon jëmmu jaag yaram wi yépp a dem eh, jëmmu jaag ruux ga yépp dem sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam subhaana alladi asra bi abdihi te loolu bu fekkoon yonent bi moo ko def sax yàlla may na ko ci tedd nga ak ci kàttan nu mu mën a defee loolu moom kën te boobaa it yàllaa ko def waaye yàlla dafa leeral ne sax mooma asra la wax subhaanalladi asra sell ñeel na buur bi nga xam ne moo rañaane bi abdi moo rañaane jaamam wax na nag laylan ñu xam ne dogit la ci guddi gi waaye duut guddi gi yépp bu noon vi layli wala laylata kada wa kada mën naa muy guddi gi yépp waaye bi mu ne laylan ñu xam ne lëf la ci guddi gi mooy ab diir bu gàtt ci guddi gi tànn na guddi ndax guddi mooy barabu mooy jamono ji wa soppe yi di di daje guddi mooy maxallul xalawaati ma al ahbaabi wax na it ne jaamam la nga gis mu delluwaat ci la Buusiri waxoon ca ginnaaw ne lam yamtaxinnaa bi ma taaya al uqulu bu noon bi nabiyihi mook ni ñuy bindee bi bu na yihi benn lañ konoon mën naa indi fitna ñu ne doomam si waaye mu ne jaamam bi ñu xam ne jaam la jaam gi ko yàlla tuddee fii mooy teraangaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barabam yim ko teralee barab yim ko teralee yépp jaam la ko fa tuddee ndax njaam ci yonent wi moo gën a tedd càng ci moom lu tax bu dee sang moog ñun a nekk moo tax mu ne ana sayyidu walla di aadama wala faxra waaye du looloy sama ndam de bu dee jaam nag mooy firi ne yàlla nekk bu nekkeek yàlla jaam lay doon bu nekkee ñun lay nekk sang te nekk ak yàlla dëgg-dëgg moo gën a kawe nekk ak ñun moo tax mu ne wala faxra loolu du sama ndam yàlla fii subhaanalladi asra bi abdihi la ko wax moo tax moom qad tasharafa bil ubudiyati bi muy wàccee ci moom alquran it mu ne tabaraka alladi nazala alfurqaana ala abdihi bi mu koy jox nubuwatu it mu ne wa innahu lamma qaama abdullahi ca kaw walla ca maqaamaan qurbu ga ba mu koy yootal li mu koy yootal te kenn jotu ca jaam la ko fa tuddee fa awxaa ilaa abdihi ma awxaa ñu gis nag ne sama borom lu tax ba muy wax ne wan na ibrahima malakut indiwul min tabidal lam ko wan daf ne wa kadalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard waaye ba muy wax yonent bi mu ne li nuriyahu min ayatina mu lennal ayat lu tax miin ga góor gu mag Cheikh Ibrahima Niass mu ne xoolal ñaari barab yi niñ wutee seetal ñaari maqaama yi ibrahima malakootu asamaan ak suuf lañ ko wan yonent bi nag romb na arash romb na kursiyu mustawan aayaatu yàlla yi nga xam ne yàlla comme du jeex ay kéemtaanam du jeex ay aayam du jeex moo tax mu lennal li nuriyahu min ayatina innahu huwa samiu albasiru yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla yëgati na ko mu jéggi asamaan yi jéggi arash jéggi kursiyu jéggi mustawa jéggi juróom ñaar fukki junney xadara ba génn ci mbooleem mbindeef yi ndax mooy meññit mi te meññet fokk mu dem ba ca cat gubba mu génn ca cat banqaas ba muy génn di gub ba ami pepp walla mu génn ca banqaas ba di doom yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam mooy cosaan waaye mooy fruit li nga ji moom mooy sax ba am doom yonent bi mooy jiw mbindeef moo sax tamit li ci diggante bi yépp di garab geeg banqaas yeeg xob yi meññat ma nag la ca la neex ci nit ñi la neex ci jinne yi la neex ci malaaka yi la neex ci mbindeef yi rasulullahi ba mu génnee nag ba faccatiku ci euh, garabu mbindeef yi la jokkook xadara yàlla ba subhaanahu wa taala ngir yàlla waxeek mooma ngir yàlla waxeek moom ca xadara boobu la mu bëgg a waxeek moom loolu wan na la xaat ni mu gënee ñi ci des bu dee sax ay yonantu lañ yonantu yi seen maqaama yi rëy nañ de waaye lu ñuy rëy rëy bu leen comparé yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ndax moom koo ko comparé rek maqaamaay kooka tuuti duut ne kooka dafa tuuti wala maqaamaam dafa tuuti waaye saf loxo ca kalambej ndaama ca kanam njool boo déggee diw dafa gàtt rek ñam nekkata ko gétti moo tax wala dafa am ñu ko fa gétti Seydina Muusa nga xam ne booy toftale ulul azmi moom mooy ñetteel ci position buñ leen di lim bu ne yonantu bi sallallahu alayhi wasallam teg ci sayyidina ibrahim moom lañ cay teg yàlla ne maa wax ak moom ci lu dul jeex ci lu dul interprète waaye terewul ci suuf lañ waxee ak moom te la mu wax ak moom yépp nettali nañu ko boo fi amoon ñaari xarit kenn ki nga tëjoog moom wax ak moom génn wax li ngeen wax walla nga xëcc ko ba ca wet gale nga wax ak moom génn wax li ngeen wax dellu si wax li ngeen wax ka ca des nga yóbbu ko ba ca sa néegu biir ba nga wax ak moom te kenn jotut ca la ngeen wax xam nga ne ki nga mujje wax ak moom nga gën a fonk sama borom nag ci suuf la waxee ak Seydina Muusa te wax nañu lam wax ak moom ci suratu Taaha waaye Seydina rasulullahi sallallahu alayhi wa yàlla daf ko yóbbu ba barab amatut daf ko yóbbu ba mbindeef amatut mu wax ak moom te lam wax ak moom kenn jotu jafa aw xaa ilaa abdihi ma aw xaa bi nga xamee ne naan na ci soow ma mu yéeg ak jibril nag jëm asamaan asamaanu benn la njëkk jot fekk fa maam aadama bi ñu fëggee ko kan la mën a jibril ko ànd ak muhammad yónni nañ ko yónni nañ ko kenn du wax kuy muhammad àdduna bi yépp a xam kuy muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañuy laaj rek ndax bar heure biñ ko waroon a yónni mu doxal mission wu yàlla bu mujj bi ndax jot na mu ne waaw ñu ubbi mu gis maama aadama bu xoolee ndeyjooram di kontaan di ree bu xoolee càmmoñam ndeysaan Euh, gis mushad bu ko tiital mu jooy yonentu ne lii xe la mu ne bu xoolee ndeyjooram xeet xeet doomam yi war a texe lay gis moo ko kontaan loo bu xoolee càmmoñam doomam yi war a texee di moo tax mu jooy Seydina Adam daal di ko ne bismillah maa ngi laa tatagal marhaban bin nabiyi saalixi marhaban bil waladi saalix tuddee na ko doom ndax mooy bàyyi mbindéef yi ci wàllu yaram moom aadama moo tax mu ne ko maa ngi lay tatagal yow sama doom ju baax ji maam ibrahima yi dana ko woowee doom ñu jógee fa yegg ju ñaareelu asamaan fekk fa ñaari doomi mbokk ya sayiduna isa ak sayiduna yaxya ñu jógee fa yegg ñetteelu asamaan ñoom waaw ah, ñu tatagal ko ñetteeloo asamaan mu fekk fa seydina yusuf alayhi salaam mu tatagal ko yonentu ne gis naa ko ñu jox ko genn wàllu taar seydina yusufa lañ jox genn wàllu taar taar yépp nag ñu booleel ko yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa jawharul xusni fiihi xayru munqasimi sallallahu alayhi wa waaye jamaalam nag haybatu jalaalam moo ko muur moo tax fitnawu wu gañ daan fitna ci fitnawu ci yuusufa duñ ko mën te duñ ko ñemee ndax balaa ngaa yegg ci taar bi ba cay bëgg a fitna jalaal bi intervenir sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi ñu yegg asamaanu ñeenteel ko kan la jibril ko àndal sang bu tedd bi yónni nañ ko yónni nañ ko fekk fa saydna idris mi yàlla wax ne wa rafanaahu makaanan aliyan mu ne ko marhaban bin nabiyi saalixi marhaban bil axi saalix juróomeelu asamaan ñu fekk fa haaroon marhaban bin nabiyi saalixi marhaban bil axi saalixi juróom-benneelu asamaan ñu fekk fa muusa marhaban bin nabiyi saalixi marhaban bil axi saalixi ba mu gisee yonent bi rek mu ne moo ne de moo ma mujje ñëw de waaye li ko yàlla may mayut ma ko lim mu yóbbu ci ajana ngéej woon naa ma mën koo yóbbu seydina rasulullah ni loolu lan la mu ne Moussa de mooy tawat ku muy waxal mu ne boromam juróom-ñaareelu asamaan ñu fekk fa seydina ibrahim nee na maa ngi ko fekk ma nga wéer gannaawam ci baytul maamur barab la bu nga xam ne mooy séexu kaaba gi bés bu nekk juróom-ñaar fukki junney malaaka daañ ko wër te duñ dellu si ni xaddis ja ñëwee ci saxiixu muslim bi ñu jógee foofu nag gannaaw bi leen seydina ibrahima tatagalee marxaban bil nabiyi saalixi marxaban bil ibni saalixi tudde na ko doom moom it di marhaban bi nabiyi saalih waaw maa ngi lay tatagal yow na yow yow baax bi marhaban bil waladi saalih yow sama doom ju baax ji mi ngi nekk ak doomi jullit yi nga xam ne dañu faatu te géntuñu ngir ñu yeggalee seen ndaw foofule ndeysaan ñu nar continuer fekk fa ñu toll mooy sidratul muntaha mooy déemu déemu dayo gi déemu dayo gi ah jibril ne ko mënatuma dem de mu ne ko ndax fu mel nii xarit dina fi bàyyi xaritam mu ne ko wallahi su ma sañoon ak yow waaye su may bouché jëm kaw walla jëm ca fa nga jëm lu toll ni tarfata ayn nii safara di def conkóor lama leer yi di lakke gis nga yonent bi ni mu toll yonent yi mënatuñu dem jibril mënatu la dem wa minna illa lahu maqaamun maalum wax naa leen ne fukki rañaanuwaay la rañaan wala fukki yéeguwaay la yéeg bés boobu juróom-ñaar yi mooy juróom-ñaari asamaan yi ñett yi ba ci njëkk mooy sidratul muntaha ñaareel ba mooy mustawan fa nga xam ne fa la toll di dégg sariful aqlaam fii tasaarifil aqdaar xalima yi bind dogal yi waaw ñetteel bi te mooy fukkeel bi mooy arash ak kursi yu gis yàlla ga subhaanahu wa taala waaye ndeke am na yeneen malaaka yu nekk ci service yoo xam ne euh, jibril amu fa accès waaw doonte jibril moo gën ci malaaka yi waaw ndax almasiyatu la taqtadi al afdaliya waaw am na sax ñu wax leneen ci malaaka yooyu le ndeysaan yonentu sallallahu alayhi wa ba muy dem na jibril yóbbante na ko ndax ku la defal teraanga googu foog nga laaj ko ndax bëgg na lan bëgg na dara yonentu laaj ko ndax soxla nga dara ci yàlla mu ne ko mu ne ko waaw mu ne ko luy sa soxla mu ne ko bu yowmal xiyaame yàlla may ma ma tàllal sama laaf yi ci kaw siraat sa xeet mën ci jaar xam nga kooku égoïstul mais ñoom looluy seen bànneex parce que du ñu lekk du ñu naanaa servir rasulullahi sallallahu alayhi wa mooy servir yàlla waaw wa man yuti rasul ku topp yonantu faqad ataa allah servir xeetu yonantu mooy servir yon mooy servir yonantu moom boobu day na ko plaisir alayhi salaam nañu ko yàlla fayal yiw moom sidna Jibril waaye yonantu ba mu yeggee ca Eh, xadara yàlla ba moom it jalaaliyatu ak xaybatu subhaanahu moo ko yóbbu fàtte na yóbbante ba ba yàlla ko ko mujj fàttali ndeysaan muy dem bu rombe eh, malaaka ci saa beneen groupe malaaka romb ko muy romb groupe malaaka groupe bi di ko romb gis ay malaaka yuy dem rek xen xamul seen lim mu laaj benn malaaka ci yi ko jege ne ko ñi fu ñu jëm mu ne ko ñeenti junne ñeenti téeméeri junne at a ngi quatre quatre cent mille ans ngi ñu ngi romb xaw ma fan lañ jóge xaw ma fu ñu jëm tax wa maa yaalamu junuuda rabbika illaa hu kenn xamul li yàlla am ci mbindeef xanaa yàlla subhaanahu wa gis na yenn malaaka yi ña nga taxaw rek mu rafetlu ko defal ko ko ci julli gis na yenn malaaka yi ña nga sëgg rek rukkoo mooy seen eh, jaamu yàlla ba faw mu rafetlu ko ñenn ña nga sujjóot ñii toog mu rafetlu ko moo ñu mujj defal ko ko ci julli sallallahu alayhi wa ngir mu am yoolu malaaka yooyu yépp ñu nit ñu am ko ci tabaan waaw waaw ñu nit ñu am ko ci tabaan te boroom eh, téere bi dina dina tëje baytu boobu ne bi ko yàlla woowee gën ji mbindeef rek lañu nekk bay defoot automatiquement la ñu nekk eh, ngën ci xeet waaw ndax yàlla eh, mosul julli julli gu du dagg mook malaakaam yi ci kenn ni ko waxee inna allaha malaikatu yusalluuna ala nabi waaw yusalluuna waaye gannaaw ñu ñooy xeetu yonent bi mu wàlluñu ko waaw huwa alladi yusalli alaykum wa malaikatu wa ma yaalamu junuuda rabbika illa hu ñee ngi toog ñee ngi taxaw ñee ngi rukko ñee ngi am na ñoo xam ne ci malaaka yi bi leen sama borom bindee ba léegi ñu ngi sujjoot di ko sàbbal ndax mooy seen dund yusabbixuuna bi xamdi rabbihim subhaanaka laa ilma lana illa ma allamtana xam nga bu ñu walee buftu bi ci la ñuy soog a siggi ci seen sujjoot xam nga buñ sujjootee buñ siggee lu ñuy wax ay waaye suñu borom subhaanaka baal ñu de maa abadnaaka xaqa ibadatik wallahi la niñ a jaamoo mbokk yi malaaka yi nga xam ne ci service yàlla lañu nekk guddi ak bëccëg yusabbixuuna bi xamdi rabbihim ñoom duñu arrêté mukk laa amuñu capacité mën a arrêté jaamu yàlla gi ñuy def terewul bu yowmal qiyaamate ñu ne yàlla joxuñu la sa xaq man ak ñenn ñu sàggan nag bu ñu jullee tisbaar sax foog ne def nañ lu ne wala ñu julli gee pare ne fi mu nekk jox naa yàlla li moom moom moom naa sama bopp ma ne ah mbir mi doy na waar <laughs> julli gee rek moom sa bopp <laughs> Cheikh El Hadji daan na wax ne nelaw yi surga du neex eh, eh, nee neen na ndax ndax pëkk-pëkk ja mooy tax te ñun ñëpp ay surga lañu ndax ku moomul ruuxam kooku surga la fu mu toll rekk war na def lu tax buy delloo boroom ruux gi ruux gi mu mel na mu meloon yàlla ñu ko yàlla defal Seydina Cheikh Ahmed Tidiane yi neen loolu suñu muhimma loolu rek la am comme liggéey fexe ba roox gi dellu ci xaalatu safa bi mu fi ñëwee woon loolu nag ku muy sa yitte doo tala noppalu doo tala ndam waaw ne ñu yonent biñ ko yebalee euh, mu nekk ci daawa bi sonn sayduna saydatuna xadija danga ko noppalul nag noppalul ne ko xadijatu nof laay amatul gannaaw tey ndax ku yàlla ne xumb te nga yonent bi dootoo noppalu qum fa anzir la ko wax waaw booba la noppalu sallallahu alayhi mbindeef yi yëpp mu gis leen gis nga sama boroom li mu yor ci mbindeef wax nañ ne bind na moom yàlla subhaanahu wa taala junney xeet juróom benn eh, téeméeri yëpp a ngi ci géej ñeenti téeméer yi nekk ci jéeri ji ñu ne sax xadis jàng kansul umal eh, ña cay njëkk a alaku mooy ah, bu ko defee tataabaat al umam dalik waa ah, ah, tataabaat al umam misla nidaami silki bay xaqib tudd Euh, ñu dul ñoom ku mel ni Abu Yaala ak ak ak Hakim ak ñu dul moom ndeysaan daa gis jën woo xam ne ci géej mën nga dawal sa xool ba mu jeex te rëyaayu jën ba doo ko doo ko doo ko mën a jeexal daa gis tamit boo xam ne tuuti na ba sa bët du ko mën gis moo tax ñu ne ba Seyduna Suleymaan comme dafa ñaan yàlla mu may ko nguur gu kenn amul ah moom mu defee ne war na mën a wutu yàlla ci ci mbindeefam yi waaw ci wàllu eh, eh, dund mu ne sama borom dama bëggoon Eh, nga may ma ma sant la parce que jox nga ma àdduna yépp ànd ak eh, njanaaw yi fi nekk ànd ak jur gi ànd ak njaay àll yi ànd ak animaux yi ci biir géej ak yi ci biti nit ñi jinne ñi dama bëgg nga jox ma ma dundal leen nag comme jox nga ma ma yilif leen yàlla ne ko mënuloo ko ne ko jox ma kon benn at mu ne ko attanuloo ko weer mënoo ko bés mënoo ko ah, may ma boog ma invité leen benn repas ne ko ca bisimilaay nee ñu seyduna eh, eh, suleymaan alayhi salaam sant nag surgaam sëpp jinn yi nit yi ku nekk na nga bàyyi service ya nga newoon te jublu ci eh, defaral ma ay ñam waaw nee ñu ba mu defar taabal bu nga xam ne mët na far sax ak ñaar fukk ci guddaay xeetu ñam yépp nag mu def ko ca ne sama borom bisimilaay na sa eh, mbindeef yi ñëw añ si tey kenn xamul eh, la mu la mu la mu togg ci ñam waaw ëpp na New York ñu ne benn benn benn euh, daaba mu génne ci géej gi rek euh, ne ko yow lañ ma booleel tey nga jox ma añ te man ñett ci lii lay lekk ñett li mooy un li may añee ah Seydina Suleymaan xam ni ndeke sama borom kenn mënu ko wóot ni ko yàlla maa ngi lay ñaan rek nga jéggal ma te jël say mbindeef yi tuub naa ko wa maa yaalamu junuuda rabbika illa huwa yonentu nag yàlla yóbbu ko fu nekk wan na ko aljanna wan ko safara wan ko xeeti xéewal yi muy xéewalee ñi nga xam ne neneñ ci mbaax moo xam ñuy julli la moo xam ñuy woor moo xam ñuy jox azaka moo xam ñuy jihaad waaye wan na ko it xeeti mbugal yi muy mbugal eh, ñi nekk ci mbon moo xam eh, jëw la nee na dañuy dagg seen ñi di leen ko jox ñu koo lekk moo xam ñuy lekk alalu jirim walla alalu riba ni ñuy Euh, ji dugalee lekk gi muy génn ci seen euh, buntu suuf gi ak tàngaay bag métit ba moo xam ñi nga xam ne dañuy négliger julli la joxe azaka ku ci nekk euh, xeetu mbugal moo xam nañuy toje bopp yàq ya ci aju ak jigéen yi nga xam ne dañ leen juutal seen wen yi ñu yeew ko daldi leen xeng ndax eh, njaaloo dañ seen liggéey ak ñi nga xam ne dañuy bàyyi seen soxna yi di seeti yeneen jigéen yu leen lewut ak jigéen yi bàyyi seen jëkkër yi seeti góor yu leen lewut ñu leen di mbugal mbugal moo xam ne bokk na ca Euh, lekk gi gën a neex a ngi waaye ñoom ñëpp ñanga nga ca medd mu xesaw mu xam ne kenn waaw xamut lan lay niru waaw xeetu mbugal yépp tudd na ko moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam yéen ci yàlla boole musal ak bàkkaar yee cay yóbbu nit yàlla ci boole musal xeetu yiw yépp it tudd na ko yàlla ñu ko yàlla boole defal ci barke yonentu bi aleyhi salaatu wassalaam ba mu yeggee ci xadara borom bi nag xam nga foog mu nuyoo wax naa leen ne fukki barab wala fukki yéeguwaay la doom ñaari mooya asamaan yi ñett yi ci tege mooy sidratul muntaha mooy mustawan ak arasha kursi yu ak gis ga ku gis go rek nga ko mën a tudde fokk mu nuyoo yàlla yankawal ko attaxiyaatu lillahi azzakiyaatu lillah attayibaatu salawaatu lillah assalaamu alayka ayuha annabi wa rahmat wa wa rahmatullahi wa barakaatu eh, eh, eh, ba mu ba mu waxee attaxiyaatu nuyooyu sell yi ñeel na yàlla azakiyatu lillah al tayibaatu salawaatu lillah yii yëpp yàllaa ko moom yàlla moo ko tontu ne ko assalaamu aleykum yàlla muy parce que foofu yàq taxiyatuhum fiha salaam diggam ajana sax salaama fa am rawatina xadara yàlla wa huwa salaam wallahu yad'u ila daari salaam waaw assalaamu aleyka ayyuha nabi waxu ko muhammad de ayyuha nabi la ko wax ayyuha sallallahu alayhi wa sallam yàlla ku bëgg nañu bëggaale ñun ci bëgg gim ko bëgg assalaamu aleyka ayyuha nabi wa rahmatullahi ñu ne ba mu déggee yàlla tudd assalaam jëmale ko ci moom mu xam ne mucc na te bëggul kenn des nag mu dugal ñu ca salaam ga assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin ñi ne malaaka wax loolu ñi ne déedéet malaaka an laa ilaha illa allah wax wa anna muhammadan abduhu wa rasul yàlla ko ko ci julli foofu la ko farataalee juróom fukki julli bés bu nekk ak sangu janaba juróom ñaari yoon xamal ko it xam-xamu way njëkk ak xam-xamu way mujj te dolli ko ca waa tax daa gis ci burde bi fa inna min juudika dunya wa darata wa min ulumika ilma allawxi walqalami ba moo dellusi nag ba yegg si asamaanu juróom benneel Moussa ma gënoon a tat ci moom moo mujj gën a nooy ci moom ndax moo ko laaj lu la sa borom jox mu wax ko ko mu ne ko sa xeet duñ ko mën waaw yonent bi moom yoonam parce que teraanga la yàlla jox la juróom fukki euh, réunion ak euh, lu ko lu ko juróom fukki réunion ci bés bi kooku teraanga la waaye Moussa ko sa xeet duñ ko mën waxu ko doo ko mën yonent bi mën na lu ëpp loolu sallallahu alayhi wa de def na ko mu dellu ci boromam dellul ci sa borom mu wàññil nee na muy dellu di dellu ba mu des juróom nee ma am kersa yàlla ne ah mu ngoog yi xam su ku ko matal ma jox la yoonu juróom fukk ndax man jaa bil xasanati fa lahu ashru amthaliha waaw bu ko defee maa yu baddalul xawlu la tey yem fa gis yëppit nag yàlla dugalal ko ci julli ga moo xam malaaka ya mu gisoon ñuy taxaw ñuy sëgg ñuy toog ñuy sujjoot naka noon tamit gannaaw yàlla doomu aadama la bindal li ci kaw suuf yépp moom la bindal sax kaw na bi yépp li nga gis benn muy lu taxaw ni garab yi mbaa muy lu rukkoo ni ki daaba yi e, yi nga xam ne waaw muy daaba yi ñoom fas ak ñu ci des wala yu sujjóot mooy xasharaat yi nga xam ne dañu taq ci suuf ak ñoom jaan ak yooyu yàlla defal ñu seen position ñoom ñëpp ci julli ngir sàbbal ya ñuy sàbbal ñu am yool bu ni toll wa in min cheyin illa yusabixu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbixahu yàlla nee na amul lum bind lu dul ne mi ngi sàbbal wala ngir ñu mën a sant xéwalu yi nga xam ne mu ngi ko bind te pour ñu ne waaw eh, ñu ne nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis gim gis yonantu yi ci asamaan yu faccanti ko dafay wone li war a topp ci dundam nan lay deme ndax aarif bi te yonent bi mooy imaamul aarifina toujours ci sëyroom day gis luy dëppoog ni mbiram di doxee ci dëgg-dëggi dundam gis na aadama ci asamaan bu njëkk mooy gis nga aadama ni ko noonam génnee woon aljanna yow sa noon yi danañ la génne màkka prépareel ba mu yéggee madina xaalu ñaareelam ñëw mooy muaadaatul yahudiyati gis nga yahudi ni ñu noonoo woon isa ak yaxya ba rey yaxya bëgg a rey luñ def ñële danañ ko jéem ci yow kon asamaan su njëkk fekk na fa aadama ngir lim ñaareel mu fekk fa isa ak yaxya ngir lim leen niru ci noone ak fexe yi leen yahud yi daa fexeel asamaanu ñetteel sallallahu alayhi wa wa saxbihi wa sallama mu fekk fa sayiduna yusuf ndax moom la niroog ñetteelu mbir bi nga xamee ne yahood yeeg arab yeeg ñépp dal nañ ci kawam muy xeex ak ñoom ba yàlla may ko ndam mu ubbi màkka te la taxoon ñu génnee ko màkka mooy lislaam imposé wu leen ko afa anta tukrihu nnaasa xata yakunu muminin la ko yàlla waxoon sañu ko laa ikraha fi diini la ko yàlla waxoon sañu ko ndeysaan mu taxaw taxawaayam bu rafet ba nag laaj leen lu ngeen lu ngeen lu ngeen xaar ci man lu ngeen waaw ah. ma ma ma tawannuna anni faa'ilun bikum sallallahu alayhi wa ngeen yaakaar ne waaw ah, moom laa leen di def ñu ne ko yow أخ كريم وابن أخ كريم waaw mbokk mu baax doomu mbokk mu baax mbaax rek lañu ñu yaakaar ci yow woowu leen sax ne leen kaay leen tuub ndax bëggul ñu gêné wu ñu foog ne buñ tuubut mu rey leen moo tax li ngay gis ñi naan dañuy xeex ak nit ñi fekk ñu jël xadis boo xam ne dañ ko jël out of context ndax nit ñi booba mooy ña doon xeex ca mag te daf leen mujj baal ba mu leen jekkoo ndax li tax mu leen doon xeex mooy self défense ba nga xamee ne euh, mënalatuñ koo def dara su ko neexoon exécuter leen ñoom ñëpp rey leen waaye defu ko mu ne leen baal naa leen duma leen wax lu dul la ma sama mbokk la sama mbokk ma waxoon Yuusuf ne dem leen yéen ñëpp libre ngeen la tathriba aleykum al yawm fa antum talaqa looloo tax mu fekk Seydina Yuusuf ci asamaanu ñetteel ndax xaalu ñetteelam moom la nuru xaalu ñeenteelam niru Idris ndax ba mu ubbee makka ci la dal tàmbalee nag bind buur yépp di leen woo ci lislaam te Idris xam ngeen ne moo njëkk a bind ak xalima juróomeelu asamaan mu fekk fa na Haarun ndax ku mbokkam yi banu Israayil a bëggoon la ndax Haaruna ku kunoo lawoon tabaarakallaahu ndax jamaal ba Moussa mooy roon jalaaliyatu ba Haaroon yor jamaaliyatu ba bi nag boole ñaar yëpp ba mu wonee jamaaliyatoom nag mbokkam yi Quraysh mujj bëgg ko nu ëpp nu banu Israayil bëggee woon Haaroon moo tax mu dajeeg moom ci juróom juróomeelu asamaan ndax juróomeelu xaalam noonu lay mel mu taseeg Seydina musa ci juróom-benneelu asamaan ndax ni ko yàlla digalee woon mu xeex ak jabaabira al jabaabiratu inna fiha qawman jabaarin jabaabiratu yi nga xam ni ñoo naroon attaqué jaziratul arab wala sax attaqué nañ ko ngir lislaam bu mu fa génn ngir seen nguur bu am problème muy ruum ak ña ca aju yàlla digal ko mu xeex ak ñoom nga gis la xew ci tëbbuk ba ñoom ñëpp ñu daw yàlla jox ko ndam sallallahu alayhi wa sallam la mujj a xeex juróom-ñaareelu asamaan mu fekk fa maamam Ibrahima ndax li mujj a def te mooy li mujj a war ci lislaam mooy aj moom la ndiroo maam Ibrahima ndax moo tabax kaaba gi ci ndigalu yàlla mook doomam woo nit ñi ñu aj si moo tax eh, yenn vision yi moo xam gént la wala du gént képp kuy def sëyru eh, doo ko doo ko doo ko doo ko caaxaane yàlla na ñu yàlla may dëgg-dëgg sayru bu tegee ci njubal yonent bi sallallahu alayhi wa nii la mbiram demee sama borom tabaraka wa yéral yëral ko taaram jegeel ko jege goo xam ne mosut koo jegeel mbindeef du ko mosa jege jegeel it mbindeef gannaaw yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ko bi jadabaati uddunu uddunu yaa muhammad uddunu uddunu jegesil jegesil sallallahu yàlla nag jamaalam bim ko wan ci la ko joxe julli ndax julli cofee la ko sos cofeel googoo tax yonentu bi sallallahu daan wax ne wa juilat qurratu ayni fi salaati ndax mushahadatu jamalillahi tabaraka wa jox na ko julli ngir wane ne ñaar yi ci julli mooy hëdëf bi tax yàlla jox ñu diine bu njëkk bi mooy taadimul xaaliqi tabaraka wa ñaareel bi mooy jàmmal nit ñi diine yépp ñaar la màggal yàlla jox ko xaqam la nga ca mën yépp ndax wa ma qadarullah xaqa qadri waaye may nit ñi jàmm taadimullahi wa talabu salaami aw ihdaau salaami tax julli akbar nga koy tàmbale jeexalee ko asalaamaaleykum allahu akbar yàllaa ko moom asalaamaaleykum mbindeefu yàlla yi tax sama boroom wax na sax ne julli maa ngi ko séddale ñaari xaaj xaaj bi maa ko moom xaaj bi sama jaam bi das lu ma sama jaam bi laaj jox naa ko su jaam bi ne alhamdulilahi rabbil alamin yàlla ne ah xamidani abdi sama jaam bi sant na ma arrahmaani rahimu ne asna alay abdi sama jaam bi tagg na ma maliki yawmi diini mu ne ah ma jëddani abdi sama jaam bi teddal na ma maanaam tudd na sama tedd iyaaka naabudu wa iyaaka nastain mu ne ah hada bayni wa bayna abdi wali abdi ma saala lii maag sama jaamu ko seq lu ma laaj ma jox ko nga ne ihdina siraata almustaqim siraata alladina an'amta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala dallin lépp ci jàmm lay dellu moom ngay ñaan ndax hidaayatu mooy cosaanu jàmm loolu rekk kat mooy diine mu dellusi si ñii ne ba muy dem la jiite woon yonent yi ñii ba muy dëpp la leen jiite woon ñii ne ba muy dem la jaaroon baytul maqdis ba mu dëppee dafa ñibbisi ci kaaba gi directement ñii ne déedéet baytul maqdis la jaaraat ñibbisi ak buraaq ala kulli xaalin yàlla jox na ko mucjisa gi ci lëf ci guddi gi loolu nag la imaam Buusiri rahmatullahi alayhi di wax ak ñun tey nee na yaa xayra man yemmama alaafuuna saaxatu yaa xayra man ey sallallahu alayhi wa mi nga xam ne yaa gën képp koo xam ne ma jublu na saaxatahoo dingareem alaafuuna way sakku njekk yi way sakku eh, maaruf dundu bu zaahir wala dund la bu baatin leer la walla euh, lekk la walla lu lumu lu aju ci àdduna walla ci àllaaxira ci kaw walla ci suuf yow mi nga xam ne képp ku wéy sàkku njëkk yi jublu yaa ko gën moo xam ña koy sàkk dañ koo jublu saayan mbir moom ñuy woy doxub dox wa fawqa mutuuni wala ñu nekk ci kaw gannaaw yi gëlëm a rusumi yey aji dëgër ba nga xam ne bu ñuy dox dëgëraayu seen dëgg tax dañuy jeexital suuf wa man yow mi nga xam ne hoo moom laayatu mooy kéemtaan alkubra ga gën a mag li képp koo xam ne aji xalam la wa man mi nga xam ne huwa gi gën a mag li muxtani mi ñeel aji jàpp xéewal muy koomam yow moomu laay woo sarayta bokk na ci kiimaan ak xéwal yi yàlla defal mooy rañaan nga min xaramin jógee makka laylan ci guddi ila xaramin jëm baytul maqdis jógee nga ci xaramu makkata subhaanalladi asra bi abdihi laylan min al masjidil xaraami ila al masjidil aqsa kama sara ni ki lay rañaanee ni ki la rañaanee rek albadru weeru badr nga xam ne mooy weer wi bi mu sëkk ci guddi fukk ak ñeent nim rañaanee fii daajin ci aji kukk mi ci lëndëm rañaan nga guddi ni weer di rañaanee guddi leer nga nàññi ni ki nga xamee ne badr mooy bi weer wi mate nëm gën a leeree leer ga yi tamit tax gox yi kukk yoon yépp nga leeral ko ni nga xamee ne weer wi gox yi lëndëmoon yépp daf koy leeral su tolloo ci Badr waaye wax naa ci tàmbali gene tur rekk e, ngeen niroo li ngeen def mooy rañaan ak rañaan ci guddi ak leer waaye sag rañaan du rañaanam ëpp na ko sag leer du leeram ëpp na ko nanga defee du definam ëpp na ko waaye gannaaw weer lañ xam ci li gën a leer ak gëna rafet ci rañaan ñu jox ko ko ngir tarangalee ko rekk waaye ngir jegeele ko dégg ñi nga xam ne ñooy déglu mu ne wa bitta tarqaa ila an ta manzilatan min qaabi qawsayni lam tudrak wa lam turami wa bitta nga fanaan tarxaa di yéeg jëm ci manazilul uluwi di xotti asamaan yi ilaa an nilta ba nga am mansilatan maqaama ak wàccuwaay woo xam ne manzila la min qaaba qawsayni wala min qaabi qawsayni mel na ci jege sa digganteeg boroom ni xalaa ak ñaari kocc ya di jegewante yow mi nga xam ne barab mën na laa àtte nga jege ko noonu moom mi nga xam ne barab mënu koo àtte mu lee la boppam ci manzila noonu waaye not ci manzil yow ci manzil wala sax génn nga manzil ba nekk ci atte moom muy jege ga di jege manzilatu ni ko góor gu mag a waxee Cheikh Ibrahima Niass laysa qurba makaanin fafham maqaali du jege barab déggal sama wax ibnu ataa ilaahi mu ne suñ digganteeg yàlla su fekkoon barab la su fekkoon ne du mayaadini mayaadinu nëfs la konoon doxuk way doxi du dëggu suñ jege suñ digganteeg yàlla du barab waaye diggante leef yi bakkan yi wara xotti la ba janoog moom ci xam subhaanahu wa ndax yàlla munazzahun an makaanin kon nag jege gi jegeeg tashrif la ak jegeeg manzilatu wa bitta nga fanaan tarqaadi yéeg ilaa nilta ba nga manzilatan wàccuwaay min xaabi xawsayni ci xaabi xawsayni wàccuwaay boo xam lam tudd rek joteefu ko walam turami sàkk sàkku weefu ko sax nag duwul ne barab la non seulement kenn mënu koo jot waaye kenn jiimu koo jot sax nag kenn sàkkuwut ko waaw mu ne waqaddamat ka te jiital la jamiul anbiyaay mbooleem yonent yi ci sababi manzilatu mi nga am war rusli ak mbooleem yonent yi lan biyaaw yi mooy ñiñ sol ruslu yi mooy ñiñ sol te yónni leen wala ruslu yi ñooy borom sharia yi lan biyaaw yi ñooy ñu jotal seen sharia yi ñoom ñépp ñu jiital la ngir li leen ëppale ngir marsi la boobu yàlla jox la ma taqdima maxduumin comme jiitaluk surga ala xadamin ma max doomin comme jiital gi ñuy jiital njaatige mu jiitu ala xadamin ci ay surga am ni nga xamee ne ku ñuy liggéeyal moom la ñuy jiital mu jiite liggéey ba ñëpp topp ci naka noonu yonent yi yëpp it dañ laa jiital nga jiite liggéey ba ñëpp ñu topp ci yonent yi yëpp it dañ laa jiital nga jiite leen julli ca baytul maqdis kenn desut wa qaddamat ka jamiul anbiyaai biha wa rusli taqdima maxdumin ala xadami wa qaddamat ka jiital na la jamiul anbiyaay mbooleem ñuñ solo ñi bihaa ngir manzilatu boobu wa rusli ak mbooleem yonant yi taqdima maxdumin jiitaluk ku ñuy liggéeyal ñu jiital ko ala xadami ca ña koy liggéeyal muy surga ya wa anta te yow taxtariqu yaa ngi xotti sabaa juróom-ñaar atibaaxa yooyu way tegle muy juróom-ñaari asamaan yi yaa ngi koy xotti bihim ak ñoom maanaam ngay eh, romb yonent yi ci diggante asamaan yi yaa ngi walla maanaam yaa ngi ànd ak eh, di ko xotti wala yaa ngi koy xotti maaran bihim xaala kaw ka maaran bihim wa anta yow taxtariqu maanaam wal xaalu annaka te mbir moom naka yow taxtariqu yaa ngi xotti sabaati baax yi tegaloo yi bihim ngay aji rombuleen leen ñoom yonent yi fii mawkibin nga nekk nag ci cortège boo xam ne kunta nekk nga fii ca cortège ba saaxibal alami di borom drapeau ba di borom màndarga ma cortège bi nga man mawkib mooy kor mooy mbooloo mu raglu mu am haybatu waaw yaa ngi romb ci asamaanu benneel aadama asamaanu ñaareel isa ak yaxya asamaanu ñetteel yusufa asamaanu ñeenteel idrisa asamaanu juróomeel haaruna asamaanu juróom benneel muusa asamaanu juróom ñaareel asamaam ibrahima alayhi wa alayhim jamian wa alayka afdalu salawatillahi wa afdalu salaamihi tabaraka wa taala ñooñu nga xam ne say surga lañ ndax yàlla wax na leen ne bés bu yenentu agsee seen mission jeex na wa ida xasalaahu mithaqa nabiyina gam wax ca suratu waaw eh, ali imran ñu ne yi tamit boobu mbooloo ci lan biyaaw yi bi nga xam ne yonent bi dajee nañu dajee naag ñoom walla mbooleem lan biyaaw yi sax yonent bi dajee naag ñoom ku nekk jóg waaw tagg yàlla xutba bañ paree yonent bi sallallahu alayhi wa sax wa sahbihi tagg yàlla tagg goo xam ne way njëkk ak way mujj yépp mënuñ ko ñu ne seydina ibrahima maamam ne leen bi hada faddalakum bi hada fadalakum muhammadun sallallahu alayhi wa ci nii liya tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leen yow nag guntux woowu nga xam ne ca kaw ña ngi ca def drapeau ba yëgati ko ñépp di ko seet yow yaay boroom guntux booba yow yaay borom drapeau booba yow yaay borom màndarga mooma mooy mbooloo mi nga àndal moo xam jibril la ak mikaayil wala burax bu fekkee àgg na ca cortège booba yow lañ doon escorté yaay ka leen tax a jóg yaay ka ca am solo fii mawkibin kunta fiihi saaxibil aalami kañ da ka ñuy joxeñ naan waajaa ngële yow sallallahu alayhi wa sallam waajaa ngële foo ko déggee rek kuñ ko mën a wax dañoo juum rasulullah ko moom xata ida lam tadac chewan li min addunuwi wala marqan li mustanimi xata ida lam tadac dem nga ba bàyyoo chewan dayo chewan leef li mustabiqin ñeel aji kursu koo xam ne dana njëkkantee di ngir jiitu bàyyeeloo ko barab bu muy njëkkante jëm bàyyeeloo ko leef bu muy njëkkante jëm fu jaam di xàgg rek ci mbaax yegg nga fa fi jaam yépp mënta xagg xagg nga fa moo tax xataa yaa lam tadax ba bàyyiwoo sha'wan leef li mustabiqin ñeel aji njëkkante sha'wan min ad-dunubi leef waa moom jege yàlla la walla marxandu caageen yéeguwaay baa moom jege yàlla la li mustanimi ñeel aji sàkku kawe képp kuy sàkkuwati teraanga ak kawe bàyyiloo ko barab bum jëmati képp kuy sàkku jege bàyyiloo ko barab bum jëmati maanaam way jege yépp raw nga leen ba benn ajiwut jege dootul njëkkante jëm ci jege ndax baaloo ko fa dara kuy jege ti ci yow lay jege dootul njëkkanteeg yow waaw yéeg nga it yéeg goo xam ne kenn mosta yéeg yéeg googa te kenn it baatut xel njëkkanteeg yow ci ngir fa nga yegg kenn mënu faa xàgg te ba ngay départ kenn jogut kay fa tarqa ruqiyaka al anbiyaaw ya samaan ma taawalat ha samaau ni ko limaam buusiri rahmatullahi alayhi waxee ci beneen téeréem ba muy mu ne ko xafatta yow yonentu sallallahu alayhi wa sallam sippi nga kulla maqaamin bépp maqaama bil idaafati ci tàpp gi nga ko tàpp mu jëm ci sa maqaama mi is ba nga xamee ne nu diita woyef na la bi rafi ci yëgati la jëm ci maqaama moo xam ne mooy xaw qaaba qawsayni nga xam ne ku dut yow jotut ko mislal mufradi ngay nekk kem ku ku ñu wéetal ka alalami kay màndargama ka ñuy joxañ baaraam yi jëfandikoo na fi ay baati naxwu ngir wane rafetuk balaaxa ki ko yàlla jox xafd dañ koy jëfandikoo ci naxwu idaafa ak la muy daaf la daaf waaw rafu dégg nga ci ci naxu euh, xam ngeen ko lisim yi koy def ak fi'lu mudaari' mufradul alami noonu yooyu yëpp waaye nag mu jëfandikoo ko fii jubluwul ca loolu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama bépp maqaama moo xam ne maqaamaam mbaax la maqaamaam kawe la maqaamaam jege yàlla la suufeel na ko kawe na ko jël na ko tàpp ko ci maqamam mi ndax maqaama yooyu yee moo leen gën ndax moo gën ci li yàlla bind sallallahu alayhi wa sallam li koy firndeel nag mooy ba ko yàlla yëgatee woo ko jegeel ko boppam ba nga xam ne xadara yàlla ba kuñ fay joxoñati naan mëngale rek mooma sallallahu alayhi wa sallam yàlla def na loolu kay ma tafuuza bi waslin ay ay mustatirin anil uyuni wa sirrin ay muktatami waaw ah. kay ma tafuusa ngir nga texe ngir nga tuuf ngir nga am bi waslin jokk yàlla ay mustatilin jokk goo xam ne nëbb na gumu ci nëbbu anil uyuni walis kenn amul agsi ci jege ga nga jege yàlla ci teew ba nga teew ci xadara yàlla subhanahu wa taala wa sirrin nga jëlee fay mbóot moo xam ne nëbb na ay muktatami gum cig nëbbu waaw nañ ko gumu cig nëbbu moom mbóot moomule jëlee nga fa mboot moo xam ne it kenn jotu ca ndax euh, subhaana alladi asra bi abdihi laylan yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi sallama jëlee na ca maqaama moo xam ne lu maqaama yëgatiku yëgatiku bu dee maqaama yonantu la dafay mujj suufe ci kanam maqaamaam sallallahu alayhi wa waaye tamit wax nañ ko fa loo xam ne mosuñ koo wax kenn te kenn it jotut ca mooy fa awxaa ila abdihi ma awxaa dana am ci boroom xam-xam yi nag ñu ne ndey setu laaj na ko ko mu ne ko ndax Aïcha danga bëgg a xam loo xam ne jibril ak mikaayil jotuñ ci nabiyu mursal jotu ci malak muqarrab jotu ci mu ne ko maa ngi lay ñaan ci barke abu bakar nga xamal ma ko ñu ne yonent bi ne ko bi ma yeggee ci xaaba xaw ni bi ma nekkee xaaba xaw xawsayni dama ne yàlla xeet yi jiitu de ñi mbugalee nga leen xeer ñii nga masax leen ñii nga labal leen maay masax mooy nga soppi leen def leen golo wala yu mel noonu ñii nga labal leen looy def sama xeet wi mu ne ko damay wàcce ci ñoom mën yërmande tukkee ci goge asamaan seen yu ñaaw ma remplacé ko def ko muy yu rafet ku ma ñaan ci ñoom ma baal ma nangul ko ku ma laaj ma jox ko ku wakkiirlu ci man ma doy ko ci àdduna ma suturaal woy mooy ci àllaaxira ma tinoo lañ ma ma tinoo leen leen maanaam ma eh, nangu sa tinu ak sa sa ramm ci ñoom eh, ku mel ni eh, Zakaria al Ansaari dana ko tudd ci sharxam waaye nag indilut ko benn sanat loolu am na it tamit ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yàlla waxi na ko alam yajidka yatiman fa aawaytuka alam ajidka daalan alam ajidka yatiman fa aaway xanaa du maa la fekk ngay ab jërim ma tàpp la alam ajidka daalan fa hadaytuka ma fekk la ngay e, ku wéet ma wan la nit ñi ndax daalan fii doo ko firee ku réer yonentu benn la woon kenn xamut ko yàlla wan ko nit ñi ma fekk la ngay ku ñàkk ma wamalal la am na neneen nuñ koy firee du maa leeral sa dënn bi waa wàcceel la sa diis diis yi nga xam ne moo diisaloon sa ginnaaw yëkkati sa tur ñu ne déedéet dafa ne ko daf ko wax yu ne aljanna xaraam na ci lan bi yaaw yi ba nga dugg ko yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam xaraam na ci yeneen xeet yi ba sa xeet dugg ca alayhi wasalaam waaye yooyu yëpp nag eh, bu dee yam ko wax la it eh, lëm-lëmal moom kenn xamut ko fa aw xaa ilaa abdihi ma awxa kenn amu ci accès sallallahu alayhi wa sallam nga làq kulla faxaarin bépp puugare xayra mustarakin duula kuñ ko bokkat yow puugare moom bokk ko kenn yaa ko moom ba mu jeex sallallahu alayhi wa wa justa it nga jéggi kulla maqaamin bépp maqaama xayra musdaxami doo ku ñuy raj raj loo anteek ndax balaa ngaa gis nit bay raj balaa ngaa raj rajoxaanteeg nit nga xam fum ne boo ko xamee it nga am fa accès waaye yonent fa ko yàlla yóbbu kenn xamu fa nam def ak moom kenn fekkewut ko man si latu bi mu ko jox kenn bokk ci ak moom kenn yëru ko lam ko wax kenn déggut ko kooku kay kenn mënta raj-raj loog moom maqaamaat yëpp jéggi nga ko yow raj-raj loo kenn waaye mbaax yëpp it làq nga ko bokk ko kenn ba ku ci amati sax yaa koy jox ni ko hadis ja waxee yàllaay joxe waaye may séddale sallallahu alayhi wa ala wa sahbihi wa sallama mu wa jalla miqdaaru ma wulliita min rutabin wa azza idraaku ma uliita min niami wa jalla aka mag ma wulliita màggaayu li nga xam ne méngale nañ la ko min rutabin ci daraja wa jalla màgg na miqdaaru ma kem li nga xam ne kem li nga xam ne wulliita e, e, méngaleef na la ko ràngaleef na la ko waaw min rutabin ci daraja maratib ak rutab yi nga xam ne sama borom subhanahu wa Eh, ràngal na la ko eh, eh, màgg na waaw yàlla sama boroom teraanga ak tedd nga ak position yi nga xam ne moom la la ràngal màgg na lool waaye waazza jafe na idraakuma jot la nga xam ne uulita méngaleef na la ko min niami ci xéewal xéewal yi la yàlla jox amut kenn koo xam ne mën na ci ajot moo tax kenn sàkkuwut ko waaye martaba yim la méngale it yim la ràngalit mbubu yim la joxit ci martaba kenn mënu koo sol xéewal yim la jox kenn mënu koo sàkku ba koy am wa jàlla màgg na miqdaaruma kem la nga xam ne wulliita ràngaleef na la ko min rutabin ci ay position ci ay martaba wa azza te jafe idraakuma waaw jomb sax idraakuma jot la nga xam ne ulita ra joxef na la ko méngaleef na la ko mi niam yi ciy xewal mu bégal ñu nag gannaaw boole ca boppam bushra lana bushra mbégte la naa ñeel ñu machara al islaami ay aani machara al islaami ay aqsidu ay axussu zikra machar al islami ay aqsidu machar al islami bushra lana mbégte ñeel nañu machar al islami ñun mbooloom lislaam nga ne ko abu siri lu tax mu ne inna lana fa ñu ñeel rukkunan ponk boo xam ne xayra mun duut muy aji nangoo mabbu minal inaayati ponk baa moom yëg ak toppatoo yàlla la yàlla yëg nañu yëg goo xam ne bu doon néeg ñu ne néeg la boo xam ne pilier ba ko téye dëgër na ba nga xam ne du mos daanu kon néeg ba du mos a daanu ñun mbooloom lislaam yàlla toppatoo nañu toppatoo goo xam ne duñ mos a perte yàlla toppatoo nañu toppatoo goo xam ne duñ mos a sànku yàlla jox nañu shariatu goo xam ne kenn du ko mos a folli xeet yi fi jaaroon yépp yàlla folli na seen shariatu ba yonent bi ñëwee mu follee ko yépp ñun nag yàlla jox nañu lislaam muy ponk boo xam ne du daanu mukk muy sharia joo xam ne du foo lekkooti mukk wala yàlla jox nañu alquran muy ponk boo xam ne du daanu mukk kon nag duñ pertaati ndax amul benn téere buy ñëwaat di folli alquran amutit benn problème bu am ci àdduna lu alxuraan joxe na ci solution amutit lenn lu weesu woon lu dul wax na ko amut lenn luy ñëw lu dul wax na ko amul benn xeetu xam-xam lu dul ma nga ca biir maa farat naa fil kitaab min shay kon kay yàlla jox nañu ponk boo xam ne ci inaayatu du daanu mukk wala pilier bi mooy yonent bi sallallahu alayhi yàlla jox nañu pilier boo xam ne du mosa daanooti pilier baa moom yitteewoo gim yitteewoo suñ mbir la ba jox ñu ko te mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa képp koo xam ne yonentu sallallahu alayhi mooy sa tàppuwaay doo mosa euh, fanaan ci biti képp ko xam ne yonentu mooy sa reeruwaay doo mosa fande képp ku muy sa wéeruwaay doo mosa daanu képp ku muy sa yonentu doo mosa texee di te it nubuwatoom du loo xam ne dañ koy folleeg geneen nubuwatu bushra mbégte la naa ñeel ñu machar al islaami ñun waa al islaam li yonentu bi sallallahu alayhi wax ne umir naa waaw maachira al anbiyaay wala nahnu mbooloom yonent yi du sax na ñeel ci toppatoo yàlla rukunan pilier boo xam ne duut muy mu continuer ne la ma daa allahu daaina li taatihi bi akrami rusuli kunna akramal umami lamma daa ba wootee lamma daa ba hooyee laahu yàlla daa'ina aji woo suñu ki yonent bi sallallahu alayhi wasallam li taa'ati ci topp ko moom yàlla ba ko yàlla hooyee tuddee ko bi akrami rusli gën jaa tedd ji yonent yi naa lañ nekk akramal umami di gën jaa tedd ci xeet bi yàlla tànnee yonent bi def ko muy ki gën a baax ci yonent yi automatiquement la def ñuy xayra ummatin uxrijat linnaasi ndax sharaful ummati bi sharafi nabiyiha te yàlla nag jox nañu gën jaa tedd ci yonentu li mu kon mooy ñun ñooy gën a tedd daa'iyanaa waaye woy wi wala sakkana alyaa ala ala qilla waaw ida lama daa allahu daa'ina li taa'atihi bi akrami rusli kunna akrama al umami wa kadalika jacalnaakum ummatan ummatan wasatan wasatan moo tax fokk ñu xam ne lu ñu am rek yonent bi moo tax yàlla jox ñu ko sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam du leneen nag baaxee gi mu baaxee yonent ci lañu ñu wàlle ni ma leen waxee léegi ne ba mu ne inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi te gannaaw ñooy xeetu yonent bi ah mu boole ñu ci huwa alladi yusalli alaykum defee nag ah ñuy tasee di ko màggal di ko def ci euh, sunna wàññi xuloo bi wàññi xeex bi ñi coow li ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, na loolu ñu ngi nuyu ñi ci eh, Facebook live bi yëpp maa ngi gis waa Sénégal yi waa États-Unis waa eh, Detroit suñu mbokk al Xuseynu Ba waa Canada suñu mbokk Mouhamed Lo waa Touba suñu mbokk Absatou eh, Mbakke ak waa tabarakallah Rhode Island Chérif Mouhamadou Lamine Haydara soxna Ami Mbacke Alxaaji Nduur Sëriñ Umar Sëriñ Habib Sarr waa Birr wa Taawun bu Géwul waa Sidi Ahmed Vaal Ousmane Ndiaye Ismaïla Ña Abi Ndiaye Chérif Boubacar Alxeyri Haydara eh, affaire baa ngi dem di Fatima soxna Fatima Lam Alxaaji Sow Umar eh, Lo Euh, Cheikh Amar Ali Cissé maam Bint Rasoul waaw moom waa Kentucky la Louisville Adama Gaye waaw Serigne Sayer président Sayer Lo euh, Le Corps Serigne Babou Ndoye euh, Oustaz ci am ngeen baal ma ci kaw nii rek laay jàng waaye du mën a am accès ci ñëpp ñu ngi ñaan suñu borom nangul ñu te tàpp ñu ci boppam tàpp ñu ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama defaral ñu suñu zaahir defaral ñu suñu baatin yàlla nañu am yàlla yàlla nañu am yonent yàlla yàlla nañu am yàlla yàlla nañu am yonent yàlla yàlla nañu am yàlla yàlla nañu am yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu